Cheikh Mamadou Bassirou ñu ngi lay nuyu ci tur Touba ca kanam njiitul Cheikh Habibou moom Cheikh Mamadou Fadal ak ci bokk yi ma àndal ñu lu ñëwoon fi nag ci tur Touba ca kanam di la siyaare si di la ndokkeel ci weeru tedd wii ak ci liggéey bu rëy bi nga xam ne sa kilifa teg na ko ci sa loxo say kilifa tàmbali woon Cheikh Mouhamadul Amine ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha muy liggéey bu yaatu di bis bu boo xam ne nose ko ak toppatoo ko li ci ne ci ab coono ku ne xam na ne mett na lool waaye nga yenu lépp ngir Sëñ Tuubaa te lool it ñu mat ci seere lool ndax ba mu tàmbalee ba tey noo ko ànd ginnaaw loolu nag Touba ci kanam dañu koy dikkoon tey ngir ni nga xamee noonu lan baaxoo doxe ci léegi li nu tax a ju muy liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi amuñ jenn it ju dul jooju te it te dëkk bi it waxtu wane mi ngi ittewoo ku ku taxaw ci ay mbir dëkk bi yëpp waaye rawatina jamonoy màggal mel na nag bi màggal gi di jub waxtaanoon nan am yéene ak pas-pas fas yéene jàpp ci màggal gi ci dëkk bi ba yi nga xamante ne des na ko fi ittewoo luñ ci man ñu def ko suñ kem kàttan loolu yi tàmbali nañ ci do ay jéego loolu moom goog wet moom dama koy jox suñ Fallou Ndiaye mu leeralal la bit si biñ ci génne woon ak liñ ci defagul te it xam ne itam mbooloo mi ñu ngi ci <coughs> sàkku sag ñaan ak sag jàppale ci wet yëpp nag awate na lu jëm ci wetu màggal bi lépp loo xamante ne lu ñuy taxawale ci màggal bi rek Touba ci kanam bëgg jekk na ci ànd ko ak yow waaye it bëgg na ku ko ànd ak ñoom ci gën leen a jàppale gën leen a soññil yi ak gën a feeñal seenu liggéey ndax ni ma ko daan ni ma koy wax rek liggéey bi li feeñal gi du ngistal du wane suñ jëf ndax sëñ Tuubaa moom weesu na nag moom foofu waaye day yëfi mbooloo moo xam ne mbooloo mi dañ ci am yaakaar lool ci doxin bi mooy tax luñ ci def ñu di ko wan ña ko joxe bañ xam ne joxe nañ ko loolu rek mooy tax waxtu ne ñuy bëgg muy leer nañ ñi li nit ñi ndax nit ñi gis nañ ne loolu bokk na ci leen ci gën a sawarloo muy xam gi xam ne li ñuy joxe ñu ngi koy def fi tax ñu di leen ko laaj. salaamaaleykum wa rahmatullah eh, baax eh, sëñ bi ñoo ngi leen ñoo ngi leen nuyu bu baax di la ziar eh, di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Muntaxa di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd ak wér di la ñaanal bu baax sunu borom may la fan wu gudd ak wér gën a dëgëral taxawaay bi ba yéene ji nga xam ne. murid yi am nañ ko ci yow suñ Tuubaa defal la ci kawe sa njort di jégg lu baax ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanamu suñu kilifa yi eh, liñ ci jublu rek mooy leeral li nga xam ne eh, ginnaaw biñ ci waxtaanee waa Touba kanam si kilifteeku sëriñ Abibu Mbakke Cheikh Amadou Fadal eh, ginnaaw bi nga xamante ne màggal gi jub si na ñu toog ak sëñ Ousmane bi nga xam ne moom mooy coordonnateur comité d'organisation bi mu waxuñu li nga xam ne bëgg na Touba ci kanam jàpp ko ci màggal Touba gi gannaaw biñ ci waxtaanee keroog ci kanam sëñ Abib ak sëñ Ousmane ak mbooleem kilifay Touba ci kanam yi eh, lañ ci juboo woon mooy Touba ci kanam dana génne téeméeri million ak juróom fukk 150 millions yoo xam ne danañ ko def ci dëkk bi ci biir màggal Touba gi loolu nag dañ koy def jàppale ko commité d'organisation Magal Touba ndax ñoom la sëñ bu dénk màggal gi kon lépp luñ ciy def rek ñoom ñoo ko war def kon ku ci lu ci waay def rek ñoom nga koy jàppale. moo tax biñ ci sëñ Ousmane waxee ñu amoon ci mbégte lool ndax euh, bañ jógee rek euh, dëkk bi rek moo ñu ñor liggéeyal sëñ Touba kon buñ demee bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi ñoo bëgg euh, ñu ànd ak ñoom ci loolu kon loolu tawféex rek lañ ko jàppee biñ ci waxtaanee ñoo xaajale ko ci ñetti cër. suñu Ousmane wax ne lu jëm ci wàllu dëkk bi leeraay gi dëkk bi gis na ne lëndëm na Touba ci kanam mu xool nu mu ciy jàppee ak lu jëm ci wàllu ndoxum dëkk bi ndax gis nañ ne bu màggal ñëwee ndox mi dafay manqué ak it euh, li nga xam ne moo jëm ci taataay ndax euh, màggal gi ku ne xam na ne moom agsi na ci nawet te dafa mel na ni ci kanam la jëm euh, ñetti pàcc yooyu nag ñu ne kon téeméeri million ak juróom fukk yi ñuy génne pàcc bu ci nekk dañ koy réserver cinquante million Euh, lu jëm ci wàllu euh, leeraay bi euh, ñu dem Chine ci usines yi nga xam ne ñooy defar làmp yi muy lampadaire yu mag yi ñuy def ci poto làmp yi ñu fàggu ci 2000 lampe 2000 lampe lañ jënd yoo xam ne incha allah su accès moom lañ bëgg def ci mbedd yi nga xam ne tàkkut lampe yooyu nag dañ koo tànn dem waxtaan ci ak waa Senelec lampe yooyu jënd nag dafa doon lampe yoo xam ne dafa am connecteur yu automatique fu mu lëndëmee day tàkkal boppam fu mu leeree mu fay nga xam ne du jar muy am contact ak yooyu ñu commande ci lamp yi ma fëri njaay mi moom moo ñu demaloon ba Chine jënd ko am na yeneen lamp yoo xam ne yooyu dañ koo jënd waaye lamp yooyu doonul loo xam ne dafa bokk ci 150 millions lamp yooyu ñu ngi ko jëndee 25 millions muy lamp yoo xam ne ci bund kër yi lañ ko fas yéene def yooyu bokkut ak 2000 lamp yooyu 3000 lañ ci fàggu waaye yooyu dañ ko jëndee Chine lañ ko jëndee foofu bu ñu dañ ko joxaat nit ñi kenn ku ci nekk fàggu ci sa def ko sa buntu kër moo tax boolewuñ ko ci budget bi loolu 25 millions waaye 25 millions yi bu lamp excès day delluwaat ci Touba ca kanam ndax kuy ñëw lamp bu ñu nekk ko jëlee ñu kii ko ndax lamp yooyu ko xoolee fii li muy jar mën na fukki junni ak waaye bañ ko jëndee fee bënd ko fii kenn ku ko mën a am ci ñaari junni ngir dañoo bëgg dëkk bi leer ndax bu pota lamp yi dee tàkk kenn ku ci nekk leeral sa buntu kër loolu dana leer naañ loolu lañ ci jublu beneen bi ci topp mooy lu jëm ci wàllu ndoxum dëkk mi doxum dëkk mi tamit euh, juróom fukki million yooyu liñ ci njëkk def mooy keroog bi nga xamante ne bii waa maaw rahmati euh, wax nañu jafe-jafe pompe yi nga xam ne manqué woon na muy rahmatul ahad ak bu baax daat ñu jëndoon ci ñu génne woon ci quinze million jënd ñaari ñaari pompe yooyu. Euh, ren ci màgg sëñ Ousmane daf ñoo waxoon ne mel na ni oto ndox yi fiy ñëw du doy wala it bu accès dana am période boo xam ne ci biir màgg oto yi duñ mën a déplacé wu. kon bu tubaa ca kanam mënee a fàgg ay réservoir yu mag yoo xam ne dañ mën a xool côté yoo xam ne ndox mi dafay jafe ñu teg ko fa su ko defee ñu koy duy muy mel ne bu ci nekk euh, oto fa taxaw euh, fàggu dañ ci ñaar fukki citerne yoo xam ne euh, réservoir waaw yu 5000 litres yoo xam ne ñu ngi ko jëndee 15 millions moom lañ ko jëndee bëgg bu ñëwee ñu mën a xool fi nga xam ne amul ndox ñu dem di ko di ko fukki heure bu kii rek ñu ñu dolluwaat ci ndox. Euh, loolu mooy li nga xam ne moom lañ def ci lu jëm ci wàllu ndox mi euh, lu jëm ci wàllu assainissement dëkk bi tamit euh, ginnaaw bi nga xam ne tàmbale nañ ko li njëkk a def mooy jënd ñaari pompe ñaari pompe yooyu ñu ngi ko jëndee woon 8 cent 812 mille 600 francs pompe yoo xam ne ngir fu taata am ñu dem mën ko faa samp mën a pompe ndox muy génn pompe yi nag àndoon ak ay ay ay raakool yoo xam ne 2 kilomètres la ndax jafe-jafe bi ñu amoon mooy station Shell bi nekk yoru foofu rigole bi daf koo sori woon biñ ci waxtaanee waa Sappoor ñoom buñ ko pompé du ñu am fuñ ko yóbbu moo tax ñu dem jënd ay racole yoo xam ne dana ma 2 kilomètres foofa garage dana ko mën nga xam ne bu buñ ko fa sampee pompe bi racole dana ma dem ba ci rigole bi nekk ci rond bi ñu dugal ko foofu nga xam day pompe directement di sotti foofu moo taxoon ñu ñu jënd boobu. ak léegi tamit eh, ñu ngi pompe ànd koog waa Sappoor fi mu toll nii pompe yi ña nga daaru Minam eh, foofu lañ féete tey nekk foofu du pompe eh, lu jëm ci wàllu sëkk beeg yooyu tamit tàmbale nañ ko. marché mbaar ya barki démb lañ ko tàmbali ndax foofu naka jekk dañ ko yàgg a jàmbat foofu lañ njëkk a tàmbalee tàmbale dem nañ fa euh, jël ay caterpillar ànd kook euh, sëñ Cheikh Mbacke euh, tàmbale nañ ko ba fi mu toll nii macha allah ña ngay kii waaye nag dañ ko fas yéene continuer biñ ci waxtaanee nag dañoo bëgg lu tollook 500 camions suuf lañ bëgg yoo xam ne dañ ko bëgg a ci dëkk bi. ndax bari na ñoo xam ne ñu ngi ñuy woo fi mu toll nii pour seeni i mbedd taana dañoo bëgg a manqué buñ manqué ba pare. Euh, ut nañ peel boo xam ne moom moo ñëw maasel foofu ñu sëkk ko ba màggal gi ni ñu mën a màggal ci jàmm loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg coût bi nag mu ngi toll ci lu jëm ci wàllu assainissement bi liñ ci liñ ci war a génneegu mu ngi toll ci 21 millions 500 euh, camions suuf yoo xam ne dañuy waxtaan ak camions yi 500 lañ soxla ku ñëw sotti ñu fay la ku ñëw sotti ñu fay la ba mu mat oto yi nga xam ne dañuy manqué it euh, noonu 200 voyages lañ soxla hydrocureur tamit danañ ci wut ñett yoo xam ne ñoom ñoom ñoo def rotation yi ak pelle mécanique boo xam ne tamit day ñëw di defar kii bi ak ay xeer yoo xam ne dana am barab yoo xam ne du ñàkk ñu def ci xeer loolu lépp nag ci biir 150 millions yi liñ ci génneegum euh, mu ngi toll ci 109 millions yoo xam ne Touba ca kanam génneegum na ko euh, pour lu jëm ci màggal Touba gi incha allah dana dana dana danañ ko weesu ndax 150 millions moom euh, mooy li ñu xayma woon ne incha allah danañ ko génne ci màggi yi waaye loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci jot a defagum ñu ciy sàkku rek ngeen ñaanal ñu ci bu baax a baax a baax. am na ci yoo xam ne ci diggante bi génn nañ ko waaye bokkut ci budget mag gi ndax loolu dañ koo boole woon ci suñu budget année 2019 lii daal mooy li nga xam ne eh, ci gàttal moom lañ fas yéene gi eh, génne mu dugg ci biir màggalu Touba gi waaye am na ci yeneen yoo xam ne yu ñu naan la yoo xam ne moom même bu dul màggalu Touba it dañ koy def waaye 150 daal moom la Touba ci kanam génne bëgg ko jàppale comité d'organisation bi ngir liggéey bi nga xam ne sëñ bu dénk ne ko ngir màggal gi eh, mu mel ni mu ko bëggee ñu fas yéene ci dugal suñu loxo di leen ci ñaanal bu baax suñ Touba defal leen ci ndam lu ngeen ci mas a am rek eh, yàlla na ko bu ñëw rek gën a kawe googu ci barkeb sëñ Muntaxa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi sunu bokk taalib yi di waa ci kanam di tàmbalee nuyoo bi ci sëriñ Abibu Mbàkke ibnu Cheikh Mahamadou Fadil di bu baax ci taxawaayam ak yitteem ak pësifam ci liggéey bi nga xam ne mooy jëwriñ ji du ko ñaan mu yàgg koo taxawee te yàgg koo ànd ak yéen di nuyu bu baax itam sëriñ Abdou Lahad mu sëriñ Abibou nga xam ne lim doon ci ñépp xam nañ ko di ko siyaare moom itam di ko sant ni ma ko daa waxee rek lii mu seere yi noon la demee liggéey boo ma ko tàmbalee ba nag ni ñoo ko ànd la jëkk liggéey bi noonu lañ ko daa àndee. ba ñu suñu diggante ba ñuy jaxasoo boo ñëwee ci kër suñu bi kon loolu du tey di nuyu di ko sant bu baax mooy itam ci pësteef ba ma xamoon ci ba ñëwee ci kër suñu son bi xaw ma lu soppikuwaat ci moom ci nangoo jàmm yàlla ak jub ak am pësteef sëriñ bi kon nag ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm yéen ñu topp seen ginnaaw te di leen jàppale ci liggéey bi te mooy ci tuddee Serigne Fallou Ndiaye mi. moo ci yitteem pour seefam ak taxawaayam te ca sëriñ Mafari Ndiaye ak sëriñ Xaadim Diouf ak sëriñ Thierno jaay ak sëriñ Sidi sekk ak sëriñ Modou Maoun Gadiaga ak sëriñ Moustapha Dieng ak mbokk yi ñu àndal yëpp soxlawu sax ku leen tudd waaye nag li tax ma jaari seen tur kenn ku ci ne mooy seen pëstéef seenu njàmbaar di rafet lu baax liggéey bi ci turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou taxa mu nga xam ne ba daayira bi sosoo ba na gën kàddu yi mu leen seeral ci yaakaar ji mu am ci liggéey bi loolu doone sëkk te yaakaar jëm ci amoon ba na gën da koy saa su ngeen fa demee mu waxaat leen wax ju gën a jëm leen waxoon kon nag day mel ne dama ci sant yàlla bu baax ndax ba ngeen koy tàmbali liggéey bi fii ngeen ma fekkoon ci kër Sëriñ Tuubaa gi waaye bi ya ma ca waxoon ba léegi ni gisuma dara lu leen ci wàcc mooy tàmbale ci sëñ bi yem ci bi eh, di ci gën a sant bu baax a baax itam ndax daayira boo xam ne ëppagut ñetti at ba nopp àgg fii loolu yitteeg procef ju rëy la kon nag dañ koy sante yàlla sante ko Sëriñ Tuubaa ndax li ma ci gën a itteel ci yéen mooy dërëm bu ci def rek lu mu tuut tuut tàmmiwu leen ko ka joxe milliard te lu ci ne itam ka ko jëf dana xam ne àgg na ci fa mu war a àgg loolu nag dañ koy rafetlu ndax eh, taalibe yi moom luñ joxe ngir sëñ bi amatuñ ci soxla waaye nag ki ki koy àggale bu defee yitte ba mu wóor ko ni jëf ji àgg na dana tax mu gën a sawar kon loolu bokk na ci li ngeen gën a liggéey sëriñ bi ba ca des mooy lii ngeen def ci màggal gi te ak li jëkk màggal yi ndax waxtu ne yéen a ngi seet li dëkk bi soxla muy ci wàllu poste de santé yi di ci wàllu ndox mi di ci wàllu leeral bi lu ngeen jàpp ne dëkk bi itteewu lu ngeen ca mën ngeen def ko màggal gi itam nag eh, Serigne Ousmane ca tàmbali ba ci njël ci mujj gi réunion bu ngeen ci mas a rek ak jëf ju ngeen ci mas a def leeral na ko mooy li ngeen jàpp ci wàllu ndox mi ak leeraay bi ngeen bëgg def ak assainissement bi ak seetal gi lépp lu ci ne seen jëf tàbbi na ca muy loo xam ne itam nag eh, ñaanu Serigne Touba gu nangu rek la ndax jëf ji ku ko dégg day mel ne daayira bu war am ñaar fukki at kon bu yàlla defee ci barkeb Serigne bi ngeen am kàtt lu mën koo jëf am xolu mën koo jëf te di ko jëfee fa mu ko fi ñu ko gën a soxlaa loolu itam tawfeex la ndax li ma ci gën a yéem mooy li ngeen di jëf. dangeen ci sóoraale ñu ñu néew doole ñi te loolu lislaam ko ne xam na ne ñi nga xam ne mënul luñ seen bopp lu ñu di jëf ci ñoom lu ñu di jëf ci lu baax rek ci ñoom la gën a gaawe kon day mel ne jëmm joo xam ne ab loxo ab loxoom dafa gudd di ko àggal fa mënta àgg kon day mel noonu laa ko jàppe ndax li ngeen jëf rawatina ci ndox mi jënd ay dencukaayu ndox yu mag yóbbu ko ci quartier yi nga xam ne mënuñu agsi di ko di ko di ko duy ngir ñi mënta agsi ci dëkk bi di ko jariñoo loolu moom mooy bu ma ci gën a bu ma ci gën a itteel ndax loolu yitte ju rëy la joo xam ne bu fekkente dañoo yem ci li ci biir dëkk bi rek fàtte ñooñu dana métti ci ndax li fi indi yi ñoo ñoo fa indi ñoom te xëy na ñii eh, lañ ci maanaam ba seen soxla faj faju ñee mënuñ ko néew nañ ci doole kon nag gàttanu ga ngeen leen di gàttanu ci sancaar yi loolu ku xam dëkk mi xam waa kër Sëriñ Tuubaa yërmaande ji daa am ci ñoom da ngay xam ne rek loolu Sëriñ Tuubaa sol ci yéen la ngeen di ko def kon loolu ñu leen ci santaat bu baax dina gërëm ci mboolam yi ngeen jëf ci màgget gi rek nga xam ne Sëriñ tubaa ngeen ko jëfal waaye nag bi eh, yàlla def na tawfeex mu jaare ci yéen ngeen def ci yitte ji cant gi dañ koy delloo sëriñ bi rek nga xam ne liggéey bi ab liggéey ma te Serigne Ousmane itam kerew ba muy njëkk a daje yéen dane ma kat damaa gis ne bi jumtuwaay yoon yoon wi la kon lépp yoon wi soxla rek dañ leen ko war a laaj man ne quoi ah ñoom de bi ñu sos daayira bi loolu la ñu waxoon te bañ tàmbalee ba nëgën itam ci loolu lañ ne kon loo itam eh, la ngeen waxoon lépp def ngeen ko kon ñu leen ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa eh, te di ci gën a soññu nit ñi nag ndax lii itam bu mënee àgg fi nit ñi di jëf moo tax. kon lu ci waay jëfoon rek na ko fàtte te fas yéene am yitte ci li ci kanamam lu mu ci jëfoon mu xeeb ko te xam ne lu ci waay jëf rek dana àgg ci sëriñ bi loolu daal kon ci gàttal rek liñ ci war a waxaat xam naa ci kanam danañ ko leeral waaye ñu ngi leen sant bu baax cant goo xam ne lépp ci seen jëf ndax li ngeen di jëf di ko jëfal sëriñ bi nopp noppalu leen guddeeg bëccëg lu jeex rek ngeen indiwaat leen ba ci garab yi ngeen def ci dëkk bi ku dugg ci dëkk bi rek ñëw na rafet ko loolu. yitte ju réy yitte ju rek ak di xalaatal dëkk bi bu ñuy ñaan ngeen gën cee dajeeg ay ndam gën cee dajeeg ay tawfeex te sëriñ bi gàttanu leen ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh